foofee sa bërëb bu euh, sell ba ba mu yeggee nag euh, ki ko teeru mooy monseigneur Benjamin Ndiaye pèlerinage bu Popenguine nekk nag xew-xewu diine yi nga xam ne ñoo gën a màgg fii ci réewu Sénégal atum 1888 lañ ko tàmbalee di màggal yëfi tàmbali tey jii di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai war a wëy ba altine di yem ak ñaar fukki fan ci weeru mai atum 2024 dañuy teewlu kàddu njiitu réew mi ba Bassirou Diomaye Faye Monseigneur, je viens waaw Monseigneur tey dama ñëw tey fii fi nga xam ne mooy ngin di euh, firnde li nga xam ne moo rek euh, sama reconnaissance euh, ci communauté chrétienne bi nga xam ne moo nekk fii ci sunum réew dama ñëw ci contexte bi nga xam ne lépp daal dañ ko war a saytu ndaxit ba xam ne anam ya nga xam ne ca la ñuy nekkee ci feetu Pentecôte bi ndax lépp yemb na wala déet communauté bu yaatu ñooy déplacé wu ngir mën a amal seen ñaan fii ci Popenguine waaye tamit monseigneur dama lay wax ni dama ñëw yi tamit saytu naam anam yooyee waaye tamit waxtaan ci lépp lu nga xam ne daal dana jëmale réew mi kanam ak loo xam ne mënees na ko def ak loo xam ne defagun ko ñu mën koo def fexe itam rek lépp mën a jëm kanam ndax it eh, gis nañ ni tamit eh, am na ci ay réalisation xam ne war nañ koo def waaye xool ci délai bu nga xam tamit eh, méngoo na waaye tamit ñu mën koo daal di yaatal monseigneur damay ñëw ci contexte bi nga xam ne feetu Pentecôte la nàmm waaye feet la waaye tamit la bu nga xam ne bu am solo ci communauté chrétienne bi mu nekk tamit lu nga xam ne fii ci suñu réew ci occasion boo xam kat dañuy ñaan ñaan ngir jàmm am fii ci Sénégal ak ci diggante jullit ak chrétien waaye célébré yi tamit li nga xam ne mooy Vierge Marie ak au moment bu nga xam ne occasion lay tamit lëkkaloo am ci diggante jullit ni ak chrétien yi ci àdduna bi yëpp wane ne kat sunu ñàkk wuute loole ak doole dëgg la ndax xam naa ci daal